الحمد لله ما سنت يلا جل خير الخلق رب جل الحمد لله ما سنت يلا جل خير الخلق رب جل وبعد ما نتالف الميمون من ناس غير وايا مقلمون mu boole mbooti daaw yaa rijaal ya doon nu jaboot ya nekk tey bàmbir ya ndax tey ba moo di wàllu kër na jaaya ñoom ni di sunna lañuy sell xam-xam ku sell aw doxin ku yaatum lef la ci yoonu Seex Bamba ku rëy ak may la wallaahi aw sasam ci tool bi booyul lu mu war a def ma nga ca kooka yeesul am na ngërëm ci yàlla ak yonen ba ak i magam am ngërëmal Cheikh Bamba ku déggal nga say mag yow te yaa ngi leen topp te it ndigal lu ñëw nga mën ca ñépp sama géej naw nañ la wóolu nañ la bayloo sa xel ndax bala ñoo jëf woola ñela danoo bëggoon sumb sangam yow loo ca xam nga dalli nangam nangam te loo ca wax duñu ko sikki sàkka duñu ko xiila sa xalaat laa sàkka lu ñu fi def yàlla ca biir bi yuslihu Cheikh may awwalul xalifa soppal lolo dag la ci pegg muuf la Cheikh Fallou it bëgg la lool doy loola xamoon na it ni nga jubóo buur yàlla bi daana ñëw fi moom bi sàkku ak pal mu ne ko waaxul soxna may dalay fal falee ko ay garaat ak daraja sangela nag pexey jom waa la ja sa cër la lii ma wax ku weddi laajal waa nguur gi ñoom xam nañ la duñ la féexal ma del si waat ca na mu ànd ak mag ya ci rafetal soog a ñëwaat ca may ya Cheikh Abdoulaye aadi aadam waayam mu naw sa jëf fonk la lool moo am jom ba noppi ngeen dëppoo ci wàllum njàmbaar ak amu fit gëmu du ngeen ñaar Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke yaa doon wettalam ci biir xolam la seen mun ñu naam Seydina Saaliwu fi sun kanam fi ak bu te wér di dem yor na xilaafa gi di dog ngeen fum ngeesu gis la sunu xol sedd doy nga ko doy loona la loolu doy na doy ngeen nu dongo yi kon nag doy na Cheikh Murtada mii di sa mag di sab xarit taxawu lool diine ji seen ànd rafet yàlla na fi sax lu yàgg fi suñ kanam ba seen mébét yi yegg sab taxawaay diggante Tuuba ak Daaru rafet na lool sa def yi yëpp a taaru nga gërëmam moomin mu làq sa ngërëm ngeen am ndam man bàcc maa ngi ñaan ci képp kuy murit fën jànge alquran wala xasaayit